dafa am taximaan yoo xam ne yàq deru taximaan yi mhm. ou bien ñu rax leen bopp déglul waa ji ne ko li ko waa ji def dama am benn affaire bi am daf ma dal si te ko teg mooy benn taximaan bu ma jël parce que dama ñëwoon Sénégal jóge Italie am benn liggéey bu ma doon def fii ak Gambie alors bu ma jógee Gambie le samedi c'est le samedi quinze euh, quinze quinze décembre le dimanche mu war a ñibbi pour dem euh, seeti samay waajur alors si laa jël taximan bi si buntu hôtel bi fekk muy ñëw benn taxi bi nga xam ni dafa zone amul benn trait bu noir mais j'ai pas fait attention nag xooluma licence bi ni matricule bi alors mu jël ma ma ne ko nag dama bëggoon nga yóbbu ma gare routière si diggante bi mu ne ma ah soo doon jëm euh, Thiès de ma yóbbaale la ma ñu demaale parce que man si àll bi laa dëkk ma ne ko man amul problème su ma demee ba si gaaru Thiès bi rek dana baax entre temps mu am sama benn xarit bu nga xam ni moom laa waroon jox benn yóbbante waaw bu ma ko laajee mu ne mi ngi si bureau bi léegi nañu daje ma jox ko bagage bi alors de temps ma koy jox bagage bi si le taximan bi daw fekk si gannaaw chaise arrière bi yëpp. def ci sama balise ak sama ben sac de voyage ak sama carte bi nga xam ay dossiers ñoo ci nek ay et tout ensuite ak sama carte de visite ak sama passeport ak sama carte bancaire ak euh, sama permis de séjour alors euh, boobu daal daw laa que di gis dem naa bu Foire déclaré leen ko mais depuis lors gisuma ko dégguma ko man lépp la nga xam moo ma si intéressé du si yére yi eh, du si dàll yi man lu ma soxla woon kese kese mooy samay document mu nga ko tegaloon si buntu hôtel bi vraiment ma jëlee ko nag parce que hôtel bi souvent si lay nekk moo ñëwee. alors mu ma defee affaire bi daal si Nord Foire waaw ci Nord Foire daal euh, lu ma ko defee quoi ko laa doon jox sama xarit bi bagage yi si la si laay du ko jox bagage bi. moom après c'est le départ dem. loolu la ko loolu la ko taximan bi def taxi bu jaune la nag quoi. jaune noir waaw jaune noir amul noir lépp lu ah, jaune la jaune yi la voilà noonu la ko yoxosoo te waa ji Gambie la doon waaj dem pour seet yi def naa est du Gambien sax iranien yi la waaw waaw waaw contexte iranien yi waaw waaw ñu peinture ko bu ñu peinture ko bu jaune waaw loolu la ko def mm. xam nga après nu mu def fi mu nekk nii ah, porté na plainte wala na plainte fi mu nii këyit nee na këyitam nee na yére yeeg bagage amul mais ay këyitam ak ay contrat yi mu yoroon lépp ma nga ca yëf ya ñiy def lu ñaaw ci biir liggéeyu sama gaañ yi bilaay bokkuñu ci dañoo rax gaañ yi. dañ leen a sama gaañ yi dañoo am